mortala fall serigne Hamdi Moustapha Kamal ka serigne Mbacke job ñom ñi nga xamni yàlla def na ne ñom ñoy taxawé liggéey bi diko ko nose ci groupe bi nga xamné moy at-ta'awun fi din wal hayat te moy dimbalante ci walu diine ak ci walu aduna bu ko défé di len nuyu bu baax baax di ndokkel mboolem julit ñi ci wër wi nga xamné ci la nekk te moy wëru safar di weer wi nga xam ne sëriñ bu mag bi sëriñ tuba radiallahu anhu waxal na boppam ne tonawu wala bénéfice bi may amee ci lëggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam lu fés la te weer wu nekk dafay yokk bénéfice boobu day yokk ci weer wu nekk waaye nee na rawatina ci weeru safar رباحية في إقدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر كون نيكي ki مبولم جوليت ني ñi di weer wi Serigne Touba radiyallahu anhu amee na ci loo xam ne moom mooy leeral mboolem l'islam bi waaye mooy leeral adduna bi fuztu inda galwa wa inda ba'fali bima bihi uniiru kulla mahfali ak la mu waxoon ne fa bashir dawi lislami bi aajilan wa kun muniran bi al islaama anta muniiru yow yàlla ci man Serigne Touba nang ci bégal waa lislaam ci lu gaaw te nang ma def ma nekk koo xam ne damay leeral mboolem jullit ñi mbokk yi ci jataay yi nga xam ne attaawunu fi diini wal xayaat dañ koy amal ci weeru màggal ñu tànn tomb boo xam ne jàpp nañ ne tomb bu ama am solo la boo xam ne waxtaane tomb yépp am na solo waaye manees naa wax ne tomb bu ko ëpp solo amut tomb bu ko ëpp solo amut rawatina ci jamono jii ñu nekk rawatina ci jamono ji ñu nekk jamono joo xam ne jaxasoo na am na ñoo xam ne ña wax ne am na keneen ku bind asamaan ak suuf ku bokkut ak yàlla suñu am na ñoo xam ne pas-pas booba moo nekk ci ñoom pas-pas boobu moo nekk ci ñoom euh, am ñoo xam ne ña wax di jëf ay waxin ak ay jëfin yoo xam ne day dugg ci li nga xam ne mooy ak bokkaale yàlla léeg-léeg sax mën naa yóbbu nit ki ci ak kéefër bu fekkee nattuwaay yi nga xam ne mooy tax ñu àttee nit ki ak génnam ci lislaam wala ak nekk ak kéefër nattuwaay yooyu daje na waaye àgg na ci sax nag am ñoo xam ne dañuy dem di wër ay garab jàpp ne garab yooya am na njariñ lum leen di indil wala boog am na lor joo xam ne moom la leen di jañal am ñoo xam ne dem nañ ba jàpp ne yàlla ji bind asamaan ak suuf njaay la sant te fekk booba seen bopp la ñuy waxal seen bopp la ñuy waxal loolu nag moo waral la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu doon wax ca majmuwa ba day dikkaat te mooy la mu waxoon ne bu ñu dajalee mboole maqaama yi ci jamono ji ñu nekk la ca gën a kawe ci maqaama yooyu mooy dëkkal tawxiid kennal yàlla ci xolu nit ñi dëkkal tawxid kennal yàlla ci xolu nit ñi jamono joo xam ne it ñun ñëpp xam nañ ne am na ay xeetu waxin yu bees yu génn ay kuréel di ko jëmbat ci nit ñi te waxin yooya ak kàddu yooya mbooloo mu baree bari jaare nañ ca sànq ñii nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ñu ne dañuy kennal sëriñ bi dañuy kennal sëriñ bi loola day lu bees la ndax Cheikh Sidil Mokhtar yal na yàlla sàmm ko ba amee ka ñëw ca moom ne ko man day dama bokk ci waa kennal daf ne ko kennal day jàpp naa ne yàlla rek lañ ko war a def baatab kennal yàlla suñu borom rek ko ko moom ci moom rek lañ ko war a jëmale bu fekkee nag sëriñ bi da ngeen a bëgg leneen loo xam ne moom ngeen koy joxe. wàcc waayam man ngeen a xool beneen baat bu bokkut ak baatab kennal te baatu kennal moom ñu bàyyeekoo ak yàlla suñu borom jamono nak serigne sëriñ al muntakha bashir yal yàlla sam ko te ar ko joxe aw bayit wo xamne neena nagn koy jàng suba am ngor moy man zanna ghayra allah yughni aw yadur fadaka daaka fi daarayni du kaddin wa dur kep ko xamne da nga jàpp ne kudul yàlla njariñ man na bayiko ci mom man na nya man na la jañal lor wala lor di bayiko ci mom nena koko japp japp ne kudul yalla amena njariñ wala amena lor nena kooku ci aduna ak alakhirah ci coona ci diis ci lor sax lay far deuk dëkk an naf'u wala adru wan naf'u min arrahman laysa min albidan wasudan lor ak njariñ mi ngi bayiko ci yàlla mi rahman waye bayiko wul ci nit ku wex bayiko wul ci nit ku ñuul الضر والنفع من الجبار ليس من الابرار والفجار لور اك نجارين ميغي بايكو تي يالا ميغا خامني موي جبار واي بايكو وول تي نيت كو باخ بايكو وول تي نيت كو بون الضر والنفع من الوهاب ليس من الاعداء والاحباب لور اك نجارين ميغي بايكو تي يالا ميغا خامني موي الوهاب واي بايكو وول تي اب نون بايكو وول تي اب سوبي تي ني ريك ньоفي نيك موي نيت كو ويهخ اك نيت كو نيول nit ku baax ak nit ku bon ab soppe ak ki nga xam ne moom mooy ab ab noon te sëriñ bu mag bi nee na lor ak njariñ bàyyikoowul ci kenn ci ñii kenn rekk lay bàyyikoo te mooy yàlla suñu borom kon mbokk yi jamono jooju tax na ñu tànn tomb bu mel nii te mooy kennal yàlla suñu boroom ak ni nga xam ne noon la ko sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ci wax ak ci dund ko ak ci woote gi waaye ak ci jaamu ci yàlla sunu boroom ak lam ca jot a bind ak ni ko jàngalee ci ay téeréem waaye it nag pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ni ko sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu indee ci ay bindam kon mbokk yi loolu mooy waxtaan wi boo ko defee ci li ñuy njëkk ñëw mooy dañuy waxtaane li nga xam ne moom mooy solo tawxiid kennal yàlla kennal yàlla mooy lan ak ban solo la amee kennal yàlla moy nga kennal ko ci jaamu gi ngoy jaamu boy julli boy wor boy aj màkk booy joxe azaka sa dundu sa faatu lépp nga jox ko yàlla sun borom qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين واي nga gëm ne yàlla moy ki nga xamne moy dundal moy ray yàlla moy ki nga xamne moy joxe moy xani yàlla mooy ki nga xam ne njariñ ak lor ci moom lay bàyyikoo waaye yàlla mooy ki nga xamante ne si moom lañuy ñuy sàkkoo xettaliku moom lañuy ñuy sàkkoo ndimbal iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yow kott yow rek yow yàlla yow la ñuy jaamu waaye yow rekk nag ci yow lañuy ñuy sàkkoo ndimbal yii ay mbir la yoo xam ne jaam bi daf ko war a fas ba pare di ko dund waaye it euh, kennal ko moom yàlla ci ay melokaanam gëm ne yàlla ku am la yàlla sosuwut ku dul yàlla ak lu dul yàlla da ngaa sosu mooy danan ne fii nga soqi fii nga bàyyi bu fekkee nit la ñu ne diw sàngam mooy baayam diw sàngam mooy yaayam léeg-léeg sax ñu ne ñi ñooy ak njabootam kon ñàkk sosu yàlla rek suñu borom moom moo ko jagoo waaye mooy ki nga xam ne moo fiy des nga xam ne bu fi lépp jógee yàlla suñu boroom rek moo fi des te ku dul yàlla da nga fi bàyyi ko nit ku mën di doon loo màgg màgg loo tedd tedd bis dana ñëw ñu ne fii mooy ab barabam nit ku mën di doon loo màgg màgg loo tedd dana ne diw sàngam mooy sa bàyyi diw sàngam mooy sa yaay léeg-léeg sax ñu ne ñi ñooy ak njabootam waaye gëm ne yàlla suñu boroom kenn la ci melokaanam kenn la ci jëfam kenn la ci li nga xamante ne si moom mooy jëmmam ku dul yàlla am na koo koy nurooleel ci melokaan wala koo koy nuróol ci jëfin wala koo koy nuróoleel ci jëmm waaye yàlla nag moom nuróowut ak kenn nuróowut ak lenn ndax laysa ka mislihi shay wa huwa samiu albasir waaye yàlla moomu mooy ki nga xam ne daa ame kattan goo xam ne yemul fenn ku dul yàlla suñu borom sax kattan am na fu muy tàmbalee am na fu muy yem daa ame coobarale goo xam ne yemul fenn ba lépp lu mu bëgg loola day daal di am ku dul yàlla suñu da nga bëgg dara loola du am إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون واي موي كيغا خامن موي ديغ ديغ بو يمول فن دي غيس غيس غو خامن يمول فن ودول يالا سا ديغ سا غيس امنا فمي تامبالي امنا فمي يم واي دي واخ واخين وو خامن نورو ووت اك واخين مي ديف موم يالا سون كون يي اي مير لا يو خامن نيت كي داف كو ورا گم fas ko diko dundu te lola moy lan moy batab la ilaha illa allah muhammadun rasulallah bi nga xamne moy jëmmal ak kennal yàlla sun borom ak jëmmal nangul yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam te fasine yéene jëfe la nga xamne lolou la indi kennal yàlla sun borom nak am bu mu am solo taxna yàlla sun borom yabal ay yonent am bu mu am solo taxna yàlla yabal ay yonent mbolam yonent yi yàlla yabal li tax mu yabal leen ci wallu fas fas mooy ñu kennal yàlla loolu yonent yépp ko bokk seen ay sharaaya seen ay acte mën naa wuute waaye ci wàllu pas-pas ñoom ñépp benn jubluwaay lañ ci am te mooy woote ci ñu kennal yàlla suñu boroom jaamu ko te bañ a jaamu leneen lu dul yàlla suñu boroom wa ma arsalna qablaka min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آية دي دي تكتا لنا يونن دي يالا دس لن يوني نجير نيو جمب التوحيد كنا ليالا كي خلو نيني موتاق بودين لوتي سورة آه الأعراف مولم يونن دي nga xamne yalla tuddu na len ku ñew la ngay wax taw nit moy jaamul te bu leen ko bokkaale ak dara amuleen beneen góor bu dul moom yàlla suñu boroom loolu yonent yàlla nuux wax yonent yàlla saalix loolu la wax yonent yàlla shuaybu loolu la wax laqad arsalna nuuxan ila qawmi fa qaala ya qawmi acbudu llaha ma lakum min ilahin gayru wa ila tamuuda aqaahum saalixa qaala ya qawmi acbudu llaha ma lakum min ilahin gayru وإلى مدين أقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره waaye la yàlla wéetal ko am gu mu am solo tax na suñ borom wàcce ay téeréem téere ya mu wàcce bari na lool mu gën caa fees tawraat linjil zabuur ak alquran téere yooyu yépp nag rawatina alquran li tax suñ borom wàcce ko mooy woote ci ñu kennal ko alif lam ra kitabun uhkimat ayatu ثم فصلت من لدن حكيم قبير ألا تعبدوا إلا الله innani lakum minhu nadirun wa bashir waaye kennal yàlla mooy li nga xam ne moom la ñuy njëkk a woo aw nit nit ki tey bu duggoon ci lislaam kenn du jekki-jekki ne ko demal julli demal woor waaye liñ koy njëkk a wax bokk na ca mooy ne ko waxal baatu seede yi muy mu seede ne amul benn buur bu nuy jaamu jaamu nga di am njariñ ñàkk gaa jaamu di ànd ak lor kudul yàlla suñ boroom waaye mu seede ne yónent yàlla muhammad ndawal yàlla suñ boroom la lii moo koy dugal ci diine bu fekkoon day julli di woor di aj makka di joxe asakati ñaari baati seede yooyu ñëwut kenn du ko jàppeegun ab jullit moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy yebal muaz ibni jabal fële ca yaman daf ne ko yaa ngi dem ci aw nit woo xam ne dañoo bokk ci ahlul kitab waaye boo demee la nga leen njëkk a woo na nekk kennal yàlla sun boroom na nekk kennal yàlla sun boroom la ca tege doog caa tege kennal yàlla am gu mu am solo bokk na ci li koy wane mooy bu ñu dee ànd ak aw nit di leen méng walla ñuy dañ ci aw nit kennal yàlla moom mooy tax ku kennal yàlla ñu ànd ak yow waaye ku bokkaale yàlla sun boroom kooko ñu dañ ci yow sëriñ bu mag bi mi ngi doon wax ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah ku ngeen gis gémmiñam di génne baatab laa ilaha illa allah bu leen ko def am noonu wax ne wa ahbibil mu'mina lil imaani wal tubghidil kaafira lil kufraani jullit bi na nga ko bëgg ngir ak gëm yàllaam waaye yéefar bi na nga ko bañ ngir ak weddi yàllaam yéefar bi na nga ko bañ ngir ak weddi yàllaam ngir ak weddi yàllaam donte jullit bi daf laa tooñ yéefar bi indil la alal ju bari teewul na nga sopp jullit bi ngir ak gëm yàllaam bañ yéefar bi ngir ak weddi yàllaam loolu la suñu borom di wax ci alquran ne لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم noon mu ko waxe waaye kennal yàlla sunu boroom am bu mu am solo bokk na ci li koy wane jihaad muy joxe sa alal joxe sa bakkan li mu metti metti la tax sunu boroom yoonal ko mooy bëgg ñu kennal ko وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله waye bokk na ci liy wane kennal yàlla solo sumu am moy aw nit bu ñu yàlla dëgeural leen yàlla dimbale leen kattanal leen dañ koy kennal te bañ ko bokkaré ak leen moy lamuy wax ne waada allahu alladina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد قوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا beneen بي لي wane kennal yàlla solo su mu am mooy day waral nit ki am kaaraange waaye day waral nit ki tege ci aw yoon gindiku برمننا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waaye mbokk yi kennal yàlla ab safaanam di bokkaale yàlla mbooleem yu doy waar yi mbooleem yu bon yi mbooleem yu ñaaw yi bu ñuy tere la ñu cay njëkk a tere mooy bokkaale yàlla suñ boroom ndax moom day alak ki koy def bokk na ci saful mubixaat ba ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam di tudd la mu njëkk a tudd mooy ashirku billah muy bokkaale yàlla te wutal mooy wutal ko morom bañ ko kennal bu ñu delloo ci alquran sun borom mi ngi wax ne qul taalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum an la tusriku bihi shay'a kaay leen waxal yow yonent yàlla muhammad ne kaay leen ma jàng ci yéen li yàlla araamal ci yéen te mooy ngeen bañ koo bokkaale ak dara waaye kennal yàlla sun boroom bokk na ci li wane soloom mooy charte la ci ñu nangu sa jëf nit ki day julli day woor day aj màkk day yoxe asaka day sarxe di def lu baax waaye ak bokkaale yàlla mi ngi ci xolam am na keneen ku muy jël di ko jox cërub yàlla sun boroom ah kooku jëfam joo jëpp lu mu bari bari lay mab sun boroom nee na yonent yàlla muhammad la in asrakt la yaxbatanna amaluka wala takunanna min alxaasirin giñ naa ne boo bokkaale yàlla sa jëf dana sippeeku te da nga bokk ci ñi nga xamante ni si dañuy perte ëllëg bu ñu delloo ci surat al anam sun borom bi mu tuddee mbooleem yonent yi nga xam ne ñam fa tudd ci yonent ci rangale leen di tartib mat na ñaar fukk ak juróom wala mu jege ko ba mu leen tuddee ba pare daf ne walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yamaluun ñii day li ma leen di tudd li ñuy baax baax baax li ñuy sell sell sell tax ma tudd leen ci anam gii bis bu ñu bokkaale woon yàlla la def lépp dafay daal di sippeeku dafay daal di màbb waaye kennal yàlla day tax nit ki tàbbi aljana euh, abu dar al xifaari yi dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi ne ko lan mooy lan mooy aqu yàlla ci jaam ñi mu ne ko mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara mu ne ko lan mooy àqu jaam ñi ci yàlla suñu borom mu ne ko mooy buñ ko jaamoo te bokkaale ko ak dara mu tàbbal leen aljana moo tax suñu borom doon wax ne yow doomu aadama boo defoon lu toll ni ki pàkk suuf ak asamaan yi ci ay bakkaar te fekk bokkaale woo ma ak dara danga nga man lu toll ni ki pàkku asamaan yi ak suuf yi ci njéggal waaye kennal yàlla sabab la ci suñu borom wàcce barke ak naataange يعني لنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويكن ليلا بقنا كلي ونسلس مؤم نبتي بنكو دوغلي كي بام ميلم لا يقاي لاج لا جيتو موي كنال يالا سون بوبا نياكو دون ديكو جام سون بوروم دا ليني دغيرال واي نياغا خامني نيوكو دون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واي أبصفا نمدي بقال يلا كبكو خمني دفنكو بفاتو تتتوبوكو يلا دولا جيجل تي أرامل نجيو الجنة تبدكو واي موي سورا تي دو أم كل فرامو ويلم وحن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار kon mbokk yi lii dafay tegtale dafay wane solo soo xam ne kennal yàlla am na ko léegi nag kennal yàlla bu fekkee solo sii la am sëriñ bu mag bi sëriñ Tuba radiyallahu anhu moom kennal yàlla naka la ko dunde ci wax ak ci jëf ak woote ca ak jaamu ca yàlla sun boroom waaye jàngale ko ci ay téeréem waaye amee woon pas-pas bu wér ba nga xam ne ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabam nekkoon sëriñ bu mag bi di sëriñ tuba radiallahu anhu mbokk yi booy xool ab nataalam ab nataalam nii rek boo koy xool di ko settantal la nga cee njëkk jànge wala boog la nga cay jàngi rek sax nag mooy kii de ab jaam la boo xam ne léppam joxoon na ko yàlla sun borom ab jaam la boo xam ne léppam jël na ko jox ko yàlla sun borom sëriñ bu mag bi sëriñ Tuba radiallahu anhu moo waxal boppam boo demee ci minanul baaxil xadim bu cheikh Mouhamadin il bashir daal di wax ne bis nekk tey gërëm naa yàlla mu nekk sama borom gërëm naa lislaam mu nekk sama diine di sama yoon gërëm naa yonent yàlla muhammad mu nekk sama yonent gërëm naa alquran alkarim mu nekk sama téere gërëm naa kaaba gi mu nekk sama xibla gërëm naa pas-pas ba nga xam ne moom la yonent bi salallahu alayhi wa sallam nekkoon ak ay saxaabaam te imaamu sanusi jàngale ko ci téeréem di umul barahin muy sama pas-pas hada wa inni alyawma du ridaai billahi rabban xoqa bisanaa'i وبهدى الإسلام دينا وسبيل وبمحمد نبيا ورسول وبكتابه وبالبيت دليل أع وقبلة لغيرها لست أميل وبعقائد السنوسي الشريف عقائدا في حق ربنا اللطيف برميك قصيدة محمد له القصيدة دار القدوس لرب العالمين ممسرين Serigne وخلية سما bi daa wax موي كن diine jaaree ko ci sunnas yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sama diine man serigne touba moy kennal yàlla ak tag yonent bi nga xamne ci dara jam ci barkem ci lama yàlla fegale jamu xew daal di wax ne sama xol man serigne touba ludul wetal yàlla mi nga xamne moy mooy bi nekku ci ak yene ñépp lu bax diiniya tawxidu ilahi nnaasi bi sunnati almaaxi an al adnaasi diiniya tawxidu wasana ala alladi bihi kafani alwatana لم ينح قلبي غير توحيد الملك ونية القير وفارقت الملوك ولمي فتوح المكرم في أمداح المكرم أقصدك السلام عليك لك أك سلم الغفران دا وخني من سرين توبا رب جامونو دما بوكالي لأجي الله دارا تي يننتي bi sallallahu alayhi wasallam duma أجلن wotte ak lenn da di wax ne sama lepp kennal yalla la ci ludul daal di wax ne dinaa ko jaamu moom yàlla ci lu dul ma koy bokkaale di lëggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jaamu gi ma koy jaamu te du ma ko bokkaale ànd koog di lëggéeyal yonent bi dama ciy mooy daal di wax ne képp koo xam ne am nga lenn ci xam-xam bu leer xam nga ne man Serigne Touba sama xol ak bokkaale yàlla nekku ci laa usliku dahra bi rabbi wala abgi bi xayri alaalamina badala kulli muwaxidun bila israaki liman lahu wasaltu bil idraaki أعبده جل بلا إشراك وأقدم الماحي باستمساك بان لكل من له إدراك أن فؤادي ما به إشراك وخلت بطم نه سيرنان يلا دي بروم لا بو خامني كين لا te man serigne touba sama wal képp koo xam ne da ngaa weddi ne yàlla mooy boroom bi di kenn kooku bokkut ak men lenn kooku du jeng jëm ci man serigne touba shahidtu anna allaha rabbun wahidun ولجنابي لا يميل جاحد bu ñu تخصي لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون nga xam ne feggiin wi rek daa wane kennal yàlla suñ borom daa wax ne man sëriñ tuba dañ naa ci kéefar ak ci kàccoor ak ci bokkaale yàlla loolu moo tax sama texe yàlla suñ borom garanti na ko baritu min kufrin wa min fisqin wa min shirkin wa rabbi saadati damin boo demee ci xasiid ak allahu tabaraka wa taala kaana lii daa wax ne man sëriñ tubaa sama lépp day bànneexu ci gëm yàlla ak jaamu ko boole ko jébbal ko sama bopp تلتز بالإيمان والإسلام كليتي لله ذا استسلام بودلتي خصيدة جالبة المزيات ودافعة الرزيات دا وخني سما جمو جبل ناكو بروم بيغا خامني امول كين امول لن لوني كاي بوكالين andak yonenti bi nga xamne ne ko moy sama soxla di sama aajo man serigne touba aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu maa alladhi qafuhu shughli wa hajati bo demé ci xasidak min al-lawh allawxi mahfuz bi judi da wax ne li nga xamné moy tawhid di kennal yàlla bu fekkon ak kër wala ab néeg lay wut dana ñëw ba ci sama xol man serigne touba mu dëkk fa te ak weddi dana jublu fenen fudul sama xol man serigne touba إلى فؤادي يسكن التوحيد ولسواه ينتحي الجحود ودمي خصيد المنن الباخ القديم في معجزات الراخ المقدوم دا وخني يالا ميغا خامني موي اري موما تيرالي گمكو كنالكو كي جامونو جاغا خامني اك بوخال يالا دا فين اكرمن المؤمن بالايمان عند ظهور الشرك في زماني وخا فينن ني تروخلول گيما تروخلول يالا ميغا خامني موي ادي ويت moy ki nga xamne jurul kenn te kenn juru toroxlul gi ma ko toroxlul bayeko ko sama bop lola mom mo teyal sama xol dulli fard alladhi lam yalid wa laysa mawludan ataba qalbi dari wax ne lépp lu yelul ci yàlla rek dakal nako ko mo dakh mu dakal ma ña nga xam ne ñoom dababtu li ghayri illahi ma lam yaliq bihi wa dabba li ghayri dahra mawlaya xussadi bo demé ci annafsiyatu salbiya la daa wax ne yàlla mi nga xam ne mooy xakiim alxakiim di aji xereñ mi nga xam ne moo dajale lépp boole lépp moo may womatal kennal ko ak di ko jaamu ak li gën ci ak gën gi tasawuf yaquudu liltawxida walfiqha maa xayra tasawufin xakimu ljamaa boo demee ci sullamu lgufran wa ridwan fi dduaai wa tasbix lépp loo xam ne mooy tax ñu ne nit ki gëm na yàlla rek sëriñ Tuubaa ne la man gëm naa ko nee naa gëm naa yàlla gëm naa yonent bi gëm naa malaaka yi gëm naa bis penc gëm téere yi gëm mboolem yonent yi ak dogal la ca neex ak la ca naqar la cay njariñ ak la cay lor ak yudul yii ci lépp loo xam ne war na ci ab jullit mu gëm ko ca la waxe ne ya rabbana inni amantu bika wa bi safiika rasuli abdika wa bilmalaikati ajmaina واليوم والكتب لا تخمينا وبجميع المرسلين والقدر القير والشر ونفع وضرر وغير ذي من كل ما قد وجب إيماننا به على ما كتب وهي مريمي خصيدة مفاتيح البشر الكبير ما غي وخني يو يالا بومو جوخي داماي سانت بومو خاني داماي داماي گرم بولي كوك دي gis nga boma joxe damay sant waye boma xagne damay muñ ak di gërëm gis nga fe shukru la jëfandikoo muy sant fi neena bu ko yàlla xagne mom day day day gërëm manam mom waxatul sant waye li yàlla def sax neex nako dal ni ko ndax xamna ne joxe ak xagne ki du wér bàyyikoowul ci kudul yow yàlla te lépp lo def man sëriñ touba neex na ma ya rab in a'taytani fa shukru wa in manata faridan wa sabru falmanu والإعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك في قصيدة limaxil basirin mu tënki ko laqad jaakum moom sëriñ bu mag bi mi ngi wax ne yéen sama waa jamono yéen ñëpp yéen lay waxal maanaam dafa am benn discours wala benn message boo xam ne sëriñ Tuubaa daf ko adressé waa jamono daal di wax ne yéen mbooleem ñi ma jamonoonteel yéen lay waxal lan moy sama wax moy sédé len ne man Serigne Touba ko gëm yàlla la diko kennal diko jaamu ak di rafetal lakum xitaabiya أهل العصر جملتكم بفضل من سؤلنا أتى ونلناه ليشهدوا الدهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي الله وأيضا وحني رفعت توحيدي لرب العالمين وقدت أمداحي لأحمد الأمين لي توحيد كنل nee na yëkkati naa ko jëme ko ci borom mbindeef yi waaye lii di ay tagg jëme naa ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga li muy fonk fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sëriñ bi lu jaawale lu yàlla moom ak lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom gis nga neena na lii di tawxiid kennal yëkkati naa ko jëme ko ci suñ boroom dafa mel ni ki dafa yëkkati kennal ñu ne ko yow serigne bu mag bi foko jeme ci yonenti bi ndax ko fonku la de mune fonku nako lol waye ak kennal mom yàlla la koy jox waye ay tag nak jox nako yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam رفعت توحيدي لرب العالمين وخدت أمداحي لأحمد الأمين دون وحنا borom بروم موي بروم عرش ak فيس أك كيلي نب ربي رب العرش في الإجهار وعكسه قطعا بلا انتهار ربي rabbul arsh fil ijhari وعكسه قطعا الى انتهاري يملشي وخو موم سيرن توبا نخ واخ جيم كو واخ بوكو ناتي باتاي لامو واخ ني تي ادنا الاخره دغنا تي تورو يالا وو nga xamne moy as-samad ci دخلت في الدارين في صاد الصمد محتجبا بحفظ ربي الاحد وخادني yàlla mi nga xamne moy kenn te jurul kenn te kenn juruko mom lay jëmele samay samay way li samadi fardi alladi lam yalid wa laysa mawludan amir maqsadi daa di wax ne jébbal na sama bop yàlla jaare ko ci qul huwa allahu ahad ya rab qad aslamtu nafsi fil ahad ahadi laka huna bi qul huwa allahu ahad daa di wax ne jël naa sama lépp jëmale ko ci yàlla mi nga xamne moy aji tabe di kenn waye ngir lan ngir sant ko ci ay xasaayid wajjahtu lillahi alkarim alwahid wajhi kay ushrika kay ashkura bilxasaayid wajjahtu lillahi alkarim alwahid wajhi kay ashkura bilxasaayid daa di wax ne ko luti gima am ci yàlla sun borom mo dox sama digeunte ak ma diko bokale ak dara te kep kuy bokale yàlla ak dara neena koko day amul yewut yewut koko dal amul ak yewute يقيني اليقين أن أشرك به شيئا فكل مشرك لم ينتبه داري وخني يالا داي سوري لنما لنغا خمنا مو موي أكسيك ساكا كينا موم داي موي بورا بوري تيت موي كينا خمنا مو أمين غور أك نيانغا خمنا نيوم نيولي نيطوب بوريا نيولي نيطوب نيب يالا لين موم نزهني ربي عن الشكوك في أنه مملك الملوك له الملوك وله الأتباع ذلله التابع والمطاع waaw kon gis nga moom sëriñ bu mag bi ni mu indee kennal yàlla ci ay waxam noonu it da koo dund da koo dund dund gi mu dund kennal yàlla moom sëriñ bu mag bi bari na lu koy wane bokk na ca mooy ay turu dëkkam dëkk yi nga xam ne daf koo sancal boppam wala mu sanc la ko moom day jàpp ne moomu ko waaye yàlla suñ boroom moo ko moom eh, ñun ñii ku ci sanc ab dëkk wala sab maam danga naan kër nàngam nga xam ne danga koy eh, eh, dëkk ba dañ koy askanale ko ko sanc wala ñu ne sanc nàngam nga xam ne dañ koy askanale ko ko sanc moo xam aw turam la moo xam aw santam la waaye sëriñ bu mag bi mbooleem fu mu mos a sanc wala mu sanc lu ko moom daf koy askanale yàlla sun borom daaru salaam ilaahi ila daari salaam allati biha unaajika xutuni aajilan waqfini xarba daaru quddus daaru alalimu alqabir daaru rahman daaru almannaan daaru alminan nawaytu ixyaa alfurudi wassunan fi watani tuuba wa fi daari alminan wala lu mu sanc lu mu ne xosnul maab mu ne daarul muxti mu ne tuuba maanaam lépp dafay delluwaat yàlla suñu boroom ci kennal ko bokk na ci liy wane dund gi mu dund ak kennal yàlla suñu boroom xasida qaalu li yarkan comme ni ko sëñ Mat Lamin indee ci irwa bi nga xamante ne si waajuram di Mamour Anta Sali génn na àdduna ñu ne ko tee ngaa dem ci buur yi nga nekk conseiller nga nekk attekat muy buur ba fa nekkoon di Lat Joor ndax soxla na la lool te bu boobaa lépp loo soxla ci àdduna ci kër yeeg ci oto yeeg ci xaalis yi danan la ko jox xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxuz jawaisa tugni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waqtafaytu bihi walastu raadiya gayra alcilmi waldiini daf ne yàlla doy na ma te doyloo naa ko te awma soxla ci lu dul xam-xam ak diine daa wax ne man Sëriñ Tuubaa bu ma jàqee wala ma am aajo yàlla mii boroom aras laa koy diis waaye du ma ko diis mindeef in kuntu daa xazanin aw kuntu daa watarin daawtu dal ayni qabla arrai wa siin daa di dem ba ne sax ndaka lay jëlee samay mbir di ko jooyal jëme ko ci ñoo xam ne dañoo lott ci seen mbiri bopp kem ni miskin lott ki ay mbiri boppam ba tax muy sàkku nimbal moom buur yi lay waxal ñi nga xam ne nit ñi dañoo jàpp ne ñoo yor lépp war ko koo jox ca la waxee ne anna ufawidu axwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajiza almasakini daal di wax ne amul kenn ku may ragal amul kenn ku may yaakaar kudul sama boroom kudul ki ma moom te moom mooy ki nga xam ne moo may jariñ وايم ميمسل ولست أرجو ولا أخسى سوى ملكي لأنه جل يغنيني وينجيني داري وحنا يالا موم خامني نك كي موم لاي ساكو نيمبال موي ادي ديمبالي ليغا خامني دارا لوتولوكو تي موي خول لوكو نيه نام كو نيه مو نيك لك وهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما شاء اي تكوين داري وحنا موم يالا موي كيغا خامني بوكو نيه مو gaawe mbir mbir mooma daal di gaaw bu ko neexee mu yeexe ko ba bum ko soobe in shaa tajila amrin kana da ajalin aw shaa tajilahu yabta ila xiinin daal di dem ba ne yaa man yaruumu fala tukthir wa daazali is lastu min faqadati dunia bi mahzuni yow mi may yedd bàyyil yedd gi bàyyil di ma yedd ndax man Sëriñ Tuubaa ñàkk gu ma ñàkk àdduna taxul ma daal di jàq taxul ma daal di tiit ndax fi ak am naa yàlla rek loola doy na ma waaye boo demee ci xasidak wala xadd rum naa sukuura mi ngi naan sama loxo man Serigne Touba duma ko tàllal di ko jëme ci ñoo xam ne dañuy nekk nekk ay buur waaye sama loxo duma ko tàllal di ko jëme ci ay dërëm ay xaalis yoo xam ne day bàyyi ko ci ñuy nekk nekk ay buur te nekkuñu ko sax dëgg-dëgg waaye sama loxo dama koy tàllal jëme ko ci yàlla mi nga xam ne ku oomal moo tax nga oomal moo mi nga xam ne mooy aji jariñe mooy mi nga xam ne mooy aji tedd di aji moom mi nga xam ne moom la ñuy jublu aajo yadi li mugnin karimin naafiin samadin laa lidarahima taati min sulaytini ci xasidak xasbuna allahu wa ni'ma alwakil euh, doyloo gi mu doyloo yàlla daf ko wax jëmmal ko ndax xasida googu di xamitu man yaxsimuni min addarar bi mu koy bind booba mi ngi nekk ci tukki bi ngir tubaab bi da koo bëgg sànq la waxe ne lastu aqaafu durra xalqin bada ma fawwatu amri ila rabbi sama ginnaaw bi nga xamante ne fii man sëriñ tubaa jël naa sama mbir jooyal ko ci borom asamaan rëgalatuma lor joo xam ne day bàyyi koo ci mbindeef waaye waxal na boppam ne diirab ba nga xamante ne fii ràññee naa xàmmee naa dañu ma di sàkkoo xam yàlla loolu moo waral mu dem seeti nitu yàlla yi ña cay dund ak ña faatu ci réew mi di saalum di kajoor di bawal di e, njàmbur fenn fu nekk mu dem fa ba ci bitim réew ca Mauritanie ngir lan ngir war ay nitu yàlla yoo xam ne ñoo koy xamal yàlla sunu boroom ولم أزل منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل تائبا فجلت بين علماء وأولياء بنيتي وعملي وقولي كي لا يضيع عمري أتعابا لحسن ظن خاد الاحتسابا ويمبوكي سرين تبا أكن ليالام أغويت ليالام داي فين كي أبتو كيم بينا خمين تنسي تبا بمين كوي إكزيلي di ko génne réew mi ngir sànk ko jëme ko foo xam ne dana fa wéet jëme ko foo xam ne dana fa tumuranke jëme ko foo xamante ne si euh, climat ba fa nekk bokkut ak bi mu xamoon fii ba loola mën naa jeexital ci moom ba faat ko waaye jëme ko foo xam ne ña fa nekk bokku moom pas-pas ndax ay yéefar lañ jëme ko foo xam ne ña fa nekk ay naankatu sàngarañ ay moykatu yàlla lañ nga xam ne moom xamagul sax destination fu mu jëm waaye bi mu nekkee ndakaaru euh, la njëkk bato bi di de daa am ku ñëw ci moom ne ko yow de ci lu yàggatul dara danan la sànk te it fa nga jëm danga fa wéet lool te danga nga fa daj ay mettit yu nekk te nga sàkku ci tubaab bi mu bàyyi la walla nga wax ñu defal la intervention serigne bu mag bi lan la wax dafa wax ne képp koo xam ne da maa wax ne ma man serigne Touba damay ranke fa nasaraan ya nga xam ne ñooy borom jaasiya ak borom xeej ya la ma lay tontu mooy yàlla doy na ma te doyloo naa ko te moo moom moo doy walis ay mbooloo nga xam ne sama wéet sama wéttaliku laa yam laa yamale li ma ñor mooy yàlla sun borom من قال لي قبل اليوم أنت مغترب عند النصارى ذوي الأسياف والسمر جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحسيب الذي يغني عن الزمر moo tax bi mu nekkee jeewal bi mu àggee ba jeewal seytaan muy iblis aku gàngooram ñëw ngir fexeel ko ngir gàllankoor ko yàlla musal ko ca daf ne ayyasa minni llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaawali li ma bëgg a wax foofu rek mooy ci biir tukki bi lépp luy njariñ Serigne Touba danaan yàllaa ko ko defal waaye lépp luy lor bu ca muccee danaan yàlla suñu borom moo ko ko ca musal bi mu demee ba Louga ginnaaw ba mu jullee tàkkusaan di yéeg ci saxaar gi ngir war a dem Ndar téewul ma ngay sàbbal yàlla di ko kañ di ko bàkk naan maa ngi sàbbal maa ngi tudd sell ak buur bi nga xam ne mooy dawal gaal yi ak bato yi ci géej yi ak ci jéer yi maa ngi tudd sell ak buur bi nga xam ne mooy tàbbal guddi ci bëccëg jël bëccëg tàbbal ko ci guddi bee gën a gudd léeg-léeg ñu tolloo euh, waaye maa ngi tudd sell ak buur bi nga xamante ne sii day moom moo ma defal ma nekk liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii bi mu nekk Louga bi yéeg ci saxaar gi ñu war koo jëme foo xam ne xamu ko ca la koy waxee subhaana man fil barri wal bahri ma'an أجر الجواري وكلا جماعة سبحان من يولج في النهار الليل والإصرار في الإجهار سبحان من لي جاد في السفينة بخدمتي لصاحب المدينة بمدمي بندر nga xam ne def na fa ñeent fukki fan daanaka ndax la des ca weeru safar ak weeru gàmm foofa la ko def coono yu nekk mu daj ko fa mettit yu nekk mu daj ko fa nga xam ne dem nañ sax ba boole ko ak gaynde ngir mu fàdd ko yàlla musal ko ci daf ne na faali xeyrillah wa qablu fi ndari bi ahli badrinil usuudi kadari ba mu demee ba ndakaaru fanaan fa guddi googu mu fa fanaan nga xam ne metti coono bu nekk daj na ko fa ci néeg boo xam ne dañ ko faa dugal ay rabbu ay puso mbooleem xeetu mbugal wu metti rek wu tar rek ñu teg ko ci kawam teewul ma ngay jàng baqara ak ala imran waaye teewut ma ngay wax ne nafa li gayrillahu xablu fi ndakaaru kulla adan li jarrahu makkaaru te loola mooy la nga xam ne nee na bu ko fàttalikoo day bëgg a jël ngànnaay xeex ak tubaab bi waaye yonent bi salaai sallam mooy dox digganteem ak loola إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمير والثبوت طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن تبعني الماحي xam ngeen ne ca ndar julli na fa ñaari rakkaam yooyu mu fa julli yu siiw yooyu nga xam ne loola dafay jëmmal ak kennal yàlla sun borom ba tey di jëmmal ne amul keneen ku may ragal amul keneen ku may yaakaar ku dul yàlla sun borom waaye bi mu duggee ci bato bi ca lay waxee ne allamani rahmanu fi safina bi annani qadimu dil madina yàlla xamal na ma ci biir bato bi ci ne man kat liggey katu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gis nga yàlla ko ko defal bi mu deme ba Conakry lam fa dajel ci lor moy koko don ko timale jasi ji nan ko watandikuma ndax sama mam kat euh kep ku fi mosa jaar di wali yu mola fat muné ko man duma wali yu yesa mam dan fat te yow do sa mam ba mu ci mucciya daf ne barra ani llahu lada konakiri min kulli jalibin ila almanakiri ba mu deme ba garam ba saa ka ko doon ñaawal di ko yejji di ko saboote yàlla musal ko ca daf ne adhaba anni allah fi garam basa qablu mubarizi wa anni khalbasa ba mu deme ba daawu mi di kotonu la ko fa dikkal ci ay addiya ci ay xeetu parfum daf ne yàlla ko ko defal daani ar-rahim inda daawumi lahu bima agna an tasawumi bi mu deme ba gabon nga xamne gas nañ ak kambu def ca sawara Euh, ngir faat ko moom sëriñ bi comme la ñu defoon yonent yàlla ibrahim ba ko cee yàlla suñ boroom musalee daf ne radama rabbi ma aduwiya xafar li darari wa saanani amman kafar fukk ak ñett ya nga xam ne ñoom lañu jëloon ñu jël ay fetal ñu teg sëriñ Tuubaa ci benn barab ngir ñu faat ko ba ñu joxee ndigal ñoom ñëpp tiire pënd ba wuri ñoom ñëpp faatu sëriñ bu mag ba des fa دفني لولا يلا وهب للوهاب في الثلاثة ما يهجل العشرة والثلاثة واي بمودمي بما يومبا فوفلا دون وحيني بما أمي كن كما يتق يلا سنبرم ليدون تلبو لما نيك من سرين توبا دومو جمبت من ديف داري وحني كيف كو خمني دانغا جابوني من سرين توبا سمك تمرانك في دانا تخ مي طرح لول كن كدول يلا نينا كوكو أب خالم دفو جمبا daal di wax ne yàlla laay jàmbat sama néew doole moom laay jàmbat sama tumuranke moom laay jàmbat sama ñàkk te it ci yàggatul dara yaakaar naa mu delloo ma ca dëkk ba di samay mbokk waaye lépp lu ma ko jàmbat moom suñ borom mu fajal ma ko ca la bindi xasida ala innani usni ala xayri munimi wala ashtaki lil xalqi min faqdi anumi fa man zannani fi gurbati daata dallulin ila gayri mugnin waasiin fa huwa له أشتكي ضعفي وفقري وغربتي وأرجو رجوعي عاجلا خير منعمي شكوت له عجزي فأشكى وكان لي بما فاخ ظني فهو أكرم مكرمي وهي فوفل جن والممسرين بمكبتي بسب كوريتي قال تنكو أقصو ونداي جورك تموني تخو أبدير ngir japp ne dana am ku ko fa fekk julle ndok mom ko rete waye gisul kenn mu kabbar ñaari xale yu jigen tolok mom diko xaqataay mu ko ñu xaqataay ko mu sujjóot ñu xaqataay ko ci la dello war ci sun borom ñaan ko mu dello ci ko ci dëkkam daal wax ne ala innani arju min al al alxaqi bi jahil mukhaffa nasir al naasiri bil haqq waaye foofa فلا ون خصيدة رضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكلم به ربا mu tënke ko rabbana axrijna min hadihi alqaryati alzalimi ahluha nga xam ne xasida la goo xam ne day jëmmal ak kennal yàlla jamono bi mu bind xasida googu fekk na dafa jël ay bant def ko ci barab bi mu doon jullee mu nekk lu mel ni ki jàkka ngir bañ ñu di fa romb waaye commandant bi dafa ñëw falaxe ko ne ko fii julli amu fi fi jaamu yàlla amu fi ku ñuy wax yelli say dëkkoon ndar loola metti ko lool ba mu jàppante ci ab commandant ba ba timis di jot waaye teewut sëriñ bu mag bi ma nga naan lahu ktub salatan ma salaamin bi alihi wa wa ashaabihi wajal bihi masjidi rahba yow yàlla na nga julli te sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ay saxaabaam ak ay ñoñam te nga def sama jàkk wala sama jumaa mu nekk lu yaatu te mooy ja nekk njaareem ak ji nekk tuuba foofu ci ma yomba sëriñ bu mag bi daana woor ba ngoon jot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 مكرما بخير بخرصاعات والسدد معظما عند رب لا شريك له لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد بقوير قردان تقو بك مدم ويتيول دانان كو يانجي دم يو ميغا خمنا ياي بيجيلي كي أي آيات أك أي سور أي سار بي القرآن يانجي دم دي ويسيد المفاسة بروب نكو من سرين توبا أب جامم أب, أب لا كلا وخين يا ذا البشارات بالآيات والصور لشهد بكوني يا عبد المحسن الصور لشهد بكوني يا عبد الله فيك بلا غش ولشهد بأني تبت من قواري سر ذا قفول لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر وكي خل xool leen kennal yàlla ما waaye فلا ca ma yomba fa mbokk yi kuy jàkkaarloog géej koo xam ne dem nga ba jàkkaarloo toog doomu aadama waaye géej ngay jàkkaarlool di wax ak moom ci foo xam ne danga ngaa tumuranke yow dong naan ko yow seedeel yow géej maa yombaane man jaamab yàlla laa man sëriñ Touba di liggéeykatu yonent bi te nag ma seereel ne duma ma topp mbindéef ci loo xam ne wala ab yéefar ci loo xam ne lu naqar yàlla la li yashhad bi kaw nii abda man yaxfiru danba wa kaw nii xadimal Mustafa bahra ولشهد بأني لا أداهن مشركا خليلا حبيبا للذي كرم الجنب دمبران كو اي يو جيجي كن لال يالا بول كو ديف نيات بول كو ايا بحر واحد لا تثلث فربنا تعالى عن التثليث اكرم به ربا يالا كن دو كو ديف نيات دمبان كو بو لي دا ناي ييغاتو دوسو نارغال يالا تاخ تي نك ما سيدل نيت اب جامم يالا كلا واخي أه فكن ذا اضطراب مزبدا من مخافة من الله آه، واشهد أنني عبده صبا فوفا فلا سرين بو مك بيدون واخي واخام دي واخني من داي سرين توبا جامو في الله دي لغي كاتو يوننتي بي te nekk gi ma nekk jaamo bi yàlla di lëggéeykatu yonente bi sal allai sallam bis bu seet raqib ak atiib danan ma ko dani képp koo xam ne da maa jàppe man sëriñ tubaa ku dul jaamab yàlla di liggéeykatu yonent bi kooko daa daa daa juum ca la waxee ne inni abdullahi jalla wa qadim lil mustafa alladi ictilaauhu yaduum yashhadu li bida raqibun wa atid fi kulli yawmin inda di alarshi almajid man zannani gayra abdillahi wa gayra xaadimi nabi fasaay waaye ma ngay wax ne samay weer samay bis man Serigne Touba ëllëg dana ma seedeel fa yàlla nekk gi ma nekk ab jaamam shuhuri wa ayami gadan li shawahidu bi kawni ya abdallah wa huwa shahiru waaye foofa fa la doon waxanteeg nasaraan yi fekk mi ngi ci seen suuf nan leen na ngeen am kóolute na ngeen am certitude ci ne man Serigne Touba jaamab yàlla laa du ma jaamab keneen du ma jaamab leneen ku dul yàlla sun borom di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam إني أخاطب النصارى طرا في أرضهم لمالكي مضطرا تيقنوا بأنني لله عبد قديم لرسول الله waaye mbokk yi jaama bi yàlla lépp lu nit di wut looloo ca ëpp solo njaam goo xam ne suñ boroom nangul na la ko ndax da ngaa jël sa lépp jox ko yàlla ba suñ boroom tuddale ab jaamam loolu day mooy martaba bi gën a kawe ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sun borom daf ko koy tuddee subhana alladi asra bi abdi alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdi ba mu demee ba ca barab yu kawe ya ba jàkkaarloog boromam teewul ab jaam la ko tuddee fa awxa ila abdihi ma awxa yonent yàlla nuux ba ko sun borom génne ca nattu ya daf ne ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يونت يلا أيوب بكو يلا نتو بمريسير دفن نعم العبد إنه أواب يونت يلا إبراهيم بكو سنبرم نتو بمجن جنتو دفن إنه من عبادنا المؤمنين يونت يلا يوسف بكو سنبرم نتو بمجن جنتو دفن إنه من عبادنا المخلصين كن لب لو نيت دي ووت نيك موجي ابو صلو واي بو ديمي سي خاسير مع الابرار da ngay gis foofu ba tey sëriñ bu mag bi kennal gi mu kennal yàlla fekk boobu mu ngi ci tukki bi ndax assiru ma ab abraar sëriñ bu mag bi mi ngi ko bindee ci tukki bi ci lay waxe ne moom yàlla def naa ko muy boroom moom mi nga xam ne moo ma dàqal noon yi waaye màngal ma li nga xam ne mooy samay bëgg-bëgg fekk sama wàll lu xeebu la di wax ne def naa ko muy boroom boo xam ne doy na ma mu nekk sama kilifa gi nga xam ne moo may méng di ma wommatal samay càkkutéef te bu ma amee ku may sant moom lay doon bu ma amee ku may aajowoo moom lay doon di wax ne samay mbir yépp jël naa ko joyal ko ko moom yàlla fekk sama xol lu teey la waaye fekk maa ngi tumuranke fa noonu ya daal di wax ne def naa ko muy borom moom mi nga xam ne mooy tàggat lu ko soob ñeel ku ko soob ci jàppandal te moom mooy ki nga xam ne tëlewul dara fa akrim bihi rabban nafa anni al ida wa saaqa wal waljanaabu xaqiru غنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقر أموري له فوضت والقلب طيب غريبا لدى الأعداء وهو بصير رضيت به ربا يثقر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير واي ما ngay سنت يالا بمو mu nekkee يومبا نانكو yomba naan ko yow yàlla maa ngi lay sant ñi may seere ci sant gi ma lay sant ak gërëm gi ma lay gërëm mooy raqib ak addi te fekk maa ngi ci iilab maa yomba laka shukru wa ridwanu minni wa shahidi raqibun atidun fi ljazirati maa yomba ca lay waxe ne yow yàlla damaa am yéeney sant la dama laa jubloo sant dama laa sàkkoo sant loola sëñ Basiiru nee na la muy tegtale mooy wane gi muy wane lott gi mu lott ci sant yàlla suñu boroom ci xéewal yi nga xam ne moom la ko defal nga xamne lotu na ci sant ko ci lamiñ lotu na ci sant ko ci xol lotu na ci sant ko ci jëf ci la waxe la ka shukru wa ridwanu minni wa shahid raqibun atidun fi ljazirati ma yomba نويت شكرك في ذا اليوم يا صمدي الله ذا العين قبل الراء والشين لوهن رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون لوهن خصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والقلق dem bané ko yow yàlla sun borom may yi ma may dafa bari ba nga xamné lotuna ci sant la hibatuka li ahya sukuriya fil kunhi lakal hamdu ya fardan taalayta an shifi waye ci lay waxe ne yow yàlla dama lay sant ci jamono bu nek ak dila gëreum gërëm مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رابق الحب في الحي dem ba ne sama xol sama ndëggu ak sama mbooleem yaram daf lay sant yow yàlla yaskuruka alfuaadu summa alqadamu wa jumlatu aljasadi ya muqaddimu waaye ak kennal yàllaam dana feeñ ci mbokk yi bi mu nekkee ci gabon juróom ñetti at yu manqué ay weer yoo xam ne def na ko fa ci biiraw nit woo xam ne seen ak jaamu yàlla mooy sunu mooy yàlla ñun li ñu def ak mooy yàlla di naan sàngara ak njaalo ak wax lu dul dëgg ñoom mooy seen ak jaamu yàlla ñun li nekk sunu jaamu yàlla di julleeg koor gi ci aju loola mooy seenu mooy yàlla ñoom waaye téewul foofu sëriñ bu mag bi nee na gàddaay naa leen jëm ci yàlla ak ab yonantam ila allahi wal muxtaari haajartu min mala ibadatuhum isyaanu wara alba mbokk yi sëriñ tuba kon dafa dund ak kennal yàlla borom lii genn wàll la ci yemul ci dundu kennal yàlla waaye daf ca wote da waxal bopam ne sama bu woote man serigne touba man ko tek ci kennal yàlla te yit nak yoon wowo duma ko wàcc adu ila al ilahi bit tawhid wa ma raaytu anhu min mahiri daa di wax ne xam-xamu tawhid xam-xamu fiqh xam-xamu tasawuf dama ko yeesal jaddidu tawhid wal furua maa tasawuf hawa burua te ku dem ci ay téeréem yi mu bind ci kennal yàlla da nga xam ne def na liggéey bu am solo ci xam-xam boobu boo demee ci sëñ Mat Lamine Diop Dagana sëriñ bu mag bi daa wax ne képp koo xam ne danga wax ne danga ngaa bokk ci man sëriñ Touba ci góor ak jigéen diglul na digal naa la nga xam lu sa ay faratay jëmm la ca jiitu mooy say ay pas-pas pas-pas li nga xam ne war nga koo fas ci yàlla suñu borom fas ko ci ay yonanteem ci ay malaayikaam ci ay téeréem ci bis penc ci dogal loola nga xam lu ko xam lu li nga xam ne mooy say assey julli ak koor ak aj màkk ak la ca aju daal di wax ne te warlul naa leen bind ay téere yoo xam ne loola daf cay nekk ci góor ñi ak jigéen la ko digal moo tax doon na wax ne awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min al tawxidi li njëkk war ci ab taalibe mooy mu amal ab yóbbalam ci kennal yàlla loolu moom moo waraloon boo xoolee ay téeréem muy woo waxambaane yi di leen wax ne bu ngeen ragalee gàcce na ngeen jiital xam-xam la njëkk ngeen jëf waaye xam-xam na ngeen ca jiital xam-xamu tawxid di kennal yàlla yaa ayuha subbaanu in xiftum xajal fa fa qaddimu qaddimu taalluman ala amal إن خفتم قجل فقدموا تعلما على عمل فقدموا العقائد السنية والثنية مجردات عن فرا ومريا دون وخني خم خمي بن لن دجلي با سي گن موي خم خمب كنال يالا تفسير دوغا نيو ñëw ya ca tege ya ca tege وأفضل العلوم بالإطلاق توحيد ربنا على اتفاق ثم ال... وبعده التفسير للقرآن ثم الحديث قاله الديماني دون وخنا خم خم بي گن سي خم خم موي خم خم بي لاي جيجل يالا سون بوروم لا سي موي خم خم توحيد خم خم فقه خم خم تصوف اك خم خم بو ني من نا عمل جارين نيت ني خم خم يي ني جانغ هذا وخير العلم يا ذوي العقول علم مقرب لمن منه النقول كالعقد والفقه وكالتصوف وكل علم بمنافع يفي بودميكي باتاي منور الصدور باغا خامنا كلا واخ واخ جوجو ماغي واخ ني كيب كو خامني داغا اموم خيل اكو غاتام خيل ناغا خام خام غو ويرني كيب كو خامني داغا ووتيك دغ دانيو لاي داك تي دغ نك موي جامبي تامبالي سي كينال يالا سون بوروم تك تي فيق اك تصوف waaye jaar ci ngir ma nga xam ne ca la ahlu sunna wal jamaa jaaroon ca la waxee ne وليعلمن كل ذكي وبليد أن الذي يخالف الحق طريض طريض والحق بدء العبد بالتوحيد والفقه عن تصوف مجيد منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة وتلك الجنة لولمي كما غالق النيران ومفاتيح الجنان أي قصائد نينا كن يالا سنبرون ترى قصائد توحيد منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم اي خاصا اذا موم بو ماك بي نينا كنال يالا سون بوروم لا كون واخنا نيت اي بنم تود يالا لا اك ديكو سانت كتابتي ذكر وشكر وسادات الله ارشد قلامي والمداد لم تكتب الاقلام بالمداد في غير فيض الله بالامداد بوكنا سي ووتي